ñu ngi jëm nag ci beneen combat muy première édition drapeau Ibamar Jong président mouvement jàppo ànd ak Ibamar Jong mu nekk ku nga xam wax dëgg yàlla doomu tëngeej la waaye di yëngutu ci social di ci def lu am ki ñi koy bëree boy yéen te noppi waam seen boy <laughs> Yoff équipe Yoff la bul ma sox dee ma may ñam sas baara jërëjëf zagab sumbaar la bul ma xam dee ma may ñam sas macha allah man daal euh, mbëri nga tëdd neex nañ ma parce que ñii dañuy dundal làmb dañuy euh, wax dëgg yàlla indiwaat aada ak cosaan euh, ñu ci profité rek di ñaanalaat suñu papa El Hadj Mame Gorgui Ndiaye na sax loolu la ñu waroon commencé bu xale yi bàkkoo rek ni cur saguñ bu ndug xel yëpp dafay dem ci El Hadj Mame Gorgui Ndiaye l'enfant chéri de de yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana Mbaye Fandam écurie Dany Fort Mbolo jërëjëf sama ñaari gars yi macha allah lii neex na ma lool ci mbër mais Mbaye sa waay bagage yi mu indi bari na torop moom xam naa ne làmb ji ñëwagul lu neef jawagul mais moom day waree ni làmb ji caaxaanewu ko fonk na ko lool côté mystique. waaw caméra yi face caméra. waaw ginnaaw moo sant yàlla si yonente bi di gërëm sama ñaari waajur di gërëm sama ñaari waajur di bëggee waa Dalifort yëpp aha waa Seras waa Maris bàyyiwuma benn dëkk waaw di sant ñëpp waaw di woo ñëpp ci combat bi tamit aha mbër laa dañ ma war a jàppale rawatina combat bii nii waaw muy bëri sama grand frère waaw mu bëri bagage trop nag waaw gis naa loolu aha mais man ay bagage sama daanu da nga maa moo tax jël nga jël avance bu quoi nekk si yoon te bu noo maa lu leer laa xale bu ndaw sama bët dafa am fu nga doomu yoof yow laay waxal de dama bëgg nga xool ma bu baax nga xam ne xale bu ndaw ngay waxal est-ce dégg bu jour ba na nga woo fa yëpp nga yokk bagage yi est dégg man mun naa jël ngemb kese bëre dara ba lay daan waaw noonu la demee nag aha auzu billaahi a sheytaani rajiim ginnaaw ma sant yàlla julli si Yonent bi di sant samay ñaanu waajur di nuyu ñi fi toog ñëpp di nuyu promoteur bi maa ngi jégalu si guddee bi nag parfois moo xa doon quoi embouteillage moo tax ma guddee di nuyu Kéba futur président CNG maa ngi nuyu bu baax di di di nuyu sama adversaire bu baax a baax di nuyu waa xew làmb waa xew làmb maa ngi nuyu ñëpp su ma numee rek juum waa xew làmb maa ngi nuyu bu baax si gis naa ko waaw sama adversaire maa ngi lay doo gis tey waaw di la wax bienvenue comme ni ko tubaab bi di waxee yaa ngi dégg ma maa lay dalal parce que dafa doon dox ma bëggoon doo ñëw sax ak sa tuuti yii nii est-ce que yaa ngi bu fekkee am nga soxla yaa ngi dégg après nga jox mu lii la quoi après mu mu lii mu la daanee pare nga jox ko mu turgat la quoi waaw loolu la gën a jeex quoi ay université lamb di nii nii yaa ngi dégg yaa ma gën a xam man ay bagage daanu ma da ngay entraîné ne ndër est ce que am na xale bu ndaw laa ba jour ba dinaa la duma dinaa la daan. waaw doomu waaw grand Malick. dinaa la fàttali sama bopp. appartement 221 lamb ñëw jël bési maa jëloon lese ba nga naan doomu yoo xam ni. kii dafa maa uppale. kii du ma taxaw fii di waxante ak moom làmb ji nekkoon maax moom ñàkk adversaire moo tax kii du maax moom si làmb te làmb jëf moo ma si wax dafa am fu ma jóge dama war a jëf kon wax jiwu ma président fi de CNG te bagate combat bi maa ngi lay sas ñaari bolok laa sas insha allah rabbi maa ngi sas ñaari bolok bu baax di ñaanal baam ndam di ñaanal sama doom day maake ndam ñami ñami ma bokkal saal tamit quoi wax dafa mais li ma óor ba óor si kàttanu yàlla yàlla man lay àndal samay waajur ñaanal nañ ma caaxaanu sax caaxaanu ma wax ma jubul maa ngi woo autorité yëpp di oo yoofi di tey di oo di oo samay mbokk yëpp di oo monsieur di oo Thiawlaay di oo Baye Seydi di oo yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma waa Koobaa ma àndal combat bu takku laa àndal ngi si biir baax di ñu ma fi maa ngi leen di bu baax a balaa maa woote waaw comme moo xam ñetti paat xam naa rek maa xamul moo tax ma jël combat bi ma mii taxaw sa kanam yaa ngi dégg di wax ak yow jàkkaarloog yow ragaluma la su ma la ragaloon du ma jël combat bi yow ma ngi lay doog a gis seetaanuma say combat sax dama dégg rek kooku bëri naag diw bëri naag diw ñooñu nga bëral na ñu jaar sa kaw yaa ngi dégg moo tax ma jël la est-ce que amee dégg du question yow yaa tax ma de ñooñu ñoo tax ma jël la ñooñu jaar fa kaw jàll ñooñu laa soxla aha man ñooñu laa soxla ñooñu samay adversaire si lamb da maa desee da ko umpale nag maa la mun fuuf mun ku la mun te mun ku la mun sax ko mun maa ko mun billaay wallaay léegi maa ngi sant maa ngi sant ñëpp maa ngi sant Abdel Abdel suñu président Ibrahima waaw di commencé si Dieng Sall moo entraîné waaw ah. seet jonn seet koosu ak waaye équipe téléphone yëpp ñoom Kaaw Cissé moo limee damay juum ah mais nag dama juum benn côté quoi temps yi téléphone temps yëpp daa ba ren dañoo am tiis dafa am loo xamante ne day tal suñu kaw ah duñ ko métti lu nag yàlla la waa téléphone laay waxal nañ muñ gëm yàlla yàlla moo ñu ko teg dafa am suñu kër yu bëri ñun jeunes yu bëri ñu nga xamante ne ñu ñàkk seen bakkan ci lu nga xam ne du feebar du leneen ak leneen ak leneen mais dañ koy sant yàlla ba barki Demba Ndiaye moo fi mujj Colobane aha ñëpp gis nañ ko teg nañ seen bët waaw di sant yàlla di la jaale ñun ñëpp ñoom ñëpp Dalifort ñëpp benn la benn kër la woon ba mu nekk dëkk ñëpp benn lañu di woo waa Dalifort dama Dalifort laa am ñëpp dañ ñu jàppale. yaa ngi dégg dañ ñu jàppale ñun ay ndaw lañu comme ñuy jàppale yeneen mbëri si yeneen gox yi di la maye un million deux millions dina jëndal ay sept bolo bu tukkee ba trente yaa ngi dégg autorité yi dañ ko def aha bu ko defee rek champion dina génn Dalifort waaw di nuyu sama grand Mbacke Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax Mbacke Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax di leen ziar mbër bu arbitre sifflé dëggalal sa bopp ngir yàlla mbër bu dellu ginnaaw bu arbitre sifflé dëggalal sa bopp borom ku ne di wax may bëral ku ne di wax ku ne avec doomu Yoff tout est possible avec Kéba Kanté futur président du CNG ok waa ji dafa mel ni seetaanul samay combat billaahi wallaahi taalaahi bëreeguma fi cinq minutes ma man arbitre sifflé bañ delluwaat bëreeguma ko fa dama teg la samay détuwaar te dama lay jàmm daan jàll dem seeti ñeneen billaahi wallaahi waaw di jégalu waa saal yëpp di nuyu ñëpp ñu fi toog ñëpp di leen jégalu bu fekkee kàddu yi ñagas na su ñun la bu fekkee baax na nag waaw ña ngi koy sante mbir yàlla suñu borom yaa ngi dégg ko waaw boobu jour